bismillahi arrahmani irrahim subhaanaka la ilma lana illa ma allamtana mbokk yu ñuy déglu ci leeru jamono ñoo leen di nuyu te ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm ginnaaw loolu ñëwaat nañ ak yéen ci ndimbalul borom bi subhaanahu wa ak kattanam ci jataay bi nga xam ne baaxoo nañ koo ànd ak yéen dimanche bu jot ci waxtu wi muy jataayu laaj ak tontu ci wàllu diine Eh, incha allahu dañuy ñëw ngir fas yéene tontu laaj yi nga xam ne moom moo fi jot a jaar tey kem liñ ci yàlla xamal. laaj bu njëkk bi mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy kii daa tawat ba docteur bi tere ko muy sukk muy laaj ba xam kon buy julli ba àgg fu mu war a sukkee nan lay def. waaw lislaam moom lépp loo xam ne jur jafe-jafe ci jullit bi te ko koy teggil loolu moo tax bu fekkee da war a sukk. te nga feebar ba mënoo sukk baa ñu tere ko nga xam ne boo sukkee xëy na man laa jural ay lor su boobaa da def na nga man rek su boobaa da ngay def na nga man bu dee da ngay toog nga toog bu dee da ngay tàll say tànk nga tàll say tànk moom daal defal la nga man la nga nag su boobaa ci na la kon lool rek moom mooy tontu bi wallahu taala alam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy ñett ñoo xam ne eh, kenn ci ñoom mënu cee jiite maanaam ay eh, kenn jàngu ci bu ñu àndee ba julli jot nan la ñuy def ndax day am ku jiite ci ñoom wala eh, ku nekk da jiite ci julli bopp waaw bu fekkente ne ñoom ñett ñëpp ñoo yam mm, maanaam kaare nga xam ne ñoom ñëpp a yam kenn jàngu ci moom su boobaa eh, kenn ci ñoom mën naa jiite loolu mooy li gën a wér loolu mooy waxe jumhurul fuqaha ñett ñoo xam ne ñëpp a ndax kenn ci ñoom ku nekk rek bu julli woon julli boppam moom julli gi dana baax nam mën a jullee lay jullee nag bu jiitee ku mel na moom baax li baaxul moom mooy ku xamul dara koo xam ne mënut a jiite di jiite koo xam ne xam na dara lu mu néew néew loolu moom su amee moom ma jiite ak julleem dana baax waaye kañ jiite moom moom la julle ak julleem du baax waaye bu ñett ñett ñëpp ñoo yem nag kenn mënu cee jiite kenn xamu ci lu muy jiitee su ñoom ñooñu uh, kenn ku ci jiite moroom ja rek julleem dana baax foofu nag ñu waxaale fi rek ne e, nit koo xam ne dafa uh, xamut lu ñuy julee nga xam ne xamut nu ñuy jànge fatiha uh, xamut man mokkul fatiha su boobaa na muy jullee moom mooy euh, day taxaw euh, di wax subhanallahi walhamdulilahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar loolu su ko waxee diirub boo xam ne mas na faa jàng faatiya euh, aku saar su ko defee bu jullee jullee gi dana baax bu fekkente ne mënul loolu ba léegi day taxaw rek taxawaayub boo xam ne ku doon jàng faatiya da nga ko mën a jàng ba mu àgg su defee noonu lay jullee waaye nag ñu denk leen moom dañoo war gaaw dem jàngi nag ni ñuy jullee ndax julli moom jëfewut xam la ñuy jullee boo xasee mokkal faatiya rek Eh, daanaka moom mas naa wax ne moom la des moom bëreetut ndax bu dee yi ñuy wax ci bi julli gi bare bare yi sopp la nga xam ne boo ko bàyyi woon sax du yàq dara julli gi lu mel boo li nga mbaa boo sujjootee su ko defee boo ma xasee mokkal faatiha eh, moom la ci ëpp solo la ca des yëpp tam yenn yi ay sunna li ci ay mustahabaat la kon daal julli lañ koy jàng te jafewut nit ki mën nit ki mën a ko jàng ci ñaari fan ñetti fan su ko defee mu mën a julli wallahu taala a'lam laaj mbokk mi koy laaj li laaj mooy àttab julli buy takk chrétien waaw loolu dagan loolu daga na ci lislaam te itam du génnee borom kër ba ci diine comme ni nga ko waxee ci laaj bi déedéet lislaam may na góoru jullit takk jigéen joo xam ne chrétien la wala muy juif sax maanaam yahud yahudiya ku nekk di dund sa diine te du yàqu dara ci seen diine loolu daga na ci lislaam wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy ku rey nit te tey ko lan mooy ab atem ak bu fekkee tey ko tam lan mooy ab atteem waaw rey bakkan ci lislaam da ñetti façon rey moo am dafa am rey boo xam ne moom Euh, rayuk tayef la kooku daa amub àtteem ak ray goo xam ne daa nuru ak tayef waaye dug tayef ak ray goo xam ne moom dug tayef ray bu njëkk bi moom mooy bi nga xam ne ki raye dafa jubloo ray jëfandikoo tam loo xam ne lu baaxoo raye la lu mel ne ki jaas yi wala paaka wala fetal mbaa yu mel noonu kooku ab àtteem ci lislaam moom mooy dañ koo war a ray ku ray bakkan te tay ko des laa war a ray ba mu des nag bu fekkente ne mbokk yi kañu rey dañoo jéggale suñu jéggalee nag eh, wala bokk ñu laaj ko diya eh, diya mooy lu eh, li muy joxe bu bu reyee bakkan te ay mbokkam laaj ko ko su boobaa moom ab àttee moom mooy mu joxe diya jooj bu fekkee baal ñu ko ko diya ja nag ñu ngi koy xayma ci téeméeri gileem kon bu fekkente daa nekk foo xam ne jëfandikoo wuñ ay gileem su boobaa dañuy xayma njëgg rek loolu mooy li gën a wér. loolu mooy àtteeb ku ray bakkan te tay ko kon ku ray bakkan te ko dañ ko war a rey bu fekkente ne ay mbokkam jéggaluñ ko bu fekkente ne tam mbokki kañu rey laaj nañ ko dee mu joxe dee jooju rey bu ñaareel bi mooy bi nga xam ne moom daa nuru ak tayeef waaye du tayeef lu mel ne ki ku doon dóor nit ngir yar ko wala rek ngir fitnaal ko far mu doxe ja faat lu mel ne ku jëloon aw yat dóor ko nit fekk bi nga koy dóor moom da ngaa jublu mettital ko waaye mu far dee wala nga jël ab mool doon ko ko dóor jubluwoon ci rek xëy na métti dal ko ak blessé ko waaye mu far joxe ca faatu euh, ray googu ku ko def moom kooku deesu ko rey waaye moom dafay joxe déya euh, boole ko kafaara boole ci kafaara ga bu njëkkoon nañ lay wax ne nga gorelub jaam ba jaam di am waaye euh, bu amul jaam itam day woor ñaari weer yu tegaloo su ko defee moom itam déyaam mooy loolu ñu waxoon sànq su boobaa nag nam koy joxe dana wuuteeg ki nga xam ne moom moo tey kii moom nga xam ne teyut maanaam daa nuru ak tayef waaye tey ko diyaam moom da koy joxe ci ñetti eh, at diiru ñetti at la koy fay tey itam ay mbokkam eh, ñoo ko koy fayle su dee ki ñu njëkk a ki nga xam ne moom moo tay moom kooku moom diyaam ci saase la koy joxe te itam ci alalam la koy jëlee eh, joxew ci alalam la koy fayee su dee nag ki nga xam ne moom ak rayam daa nuru tay te teyu ko ay mbokkam ñoo ko fay ci saasi waaye mën na ko waaye da ci boole kafaara moom itam su dee ñetteelu ray bi nag bi nga xam ne moom nit ki daa ray rayam njumte lu mel ne ku doon dawal oto fiir ak nit mbaa ku doon jaay aw ñam xëy na eh, tooke dugg ci te tëyu ko ba mu jaay ko indi ñooñu def ko faatu wala ñu mel noonu nga xam ne moom moo rey waaye tëyu ko kooku itam day joxe diye waaye diye ji moom itam dañ ko koy mm, eh, may moom fay ko ñetti fa ñetti at te it moom dajee boole kafaara ba tey eh, kafaara gi mooy day woor ñaari weer yu tegaloo moom itam diyaam ay mbokkam ñoo ko koy fayle kon loolu mooy atteb ku rey bakkan bu fekkente ne góor la Euh, su boobaa dee ji moo loolu ñu waxoon sànq téeméeri gileem bu fekkente ne jigéen li nag genn waa ki lay joxe genn wàll dee góor wallahu taala alam laaj bi ci topp te Pape Alassane Mbow laaj ko li muy laaj mooy kii tension da koo daanee ba génn wet gi maanaam xaw mel ne lu paralysé nga xam ne loxob càmmoñ bu mënu koo jëfandikoo muy laaj ba xam kooku bu amee jana ba ndax dina dagan borom këram sang ko farata wala déet waaw loolu kay dagan na dagan na ci borom kër bi mu sang ko Euh, waaye pour gën koo wax ne ko rek lislaam moom mbiram da koy yombal ndax borom këram mën naa am fa nekk jamono ju nekk euh, bu fa borom këram itam buy sangu farata na def man rek sangu farata moom la cay euh, farata mooy na yaram bi fépp dajak ndox nga bomb ko ba ànd ak yéene kon bu fekkente ne am na jamono yoo xam ne borom këram nekku fa itam nu mu mën a fexee rek gannaaw beneen loxo bi moom mi ngi baax nu mën a fexee ba sot jël ndox sotti ko ci wet googu nga xam ne mënu koo jëfandikoo baax na Euh, su ko defee euh, geneen wet gi ci des nu mu mën a fexe ba ndox mu àgg ci rek su ko defee bomb gaag yooyu moom comme wàcc comme mënu ko dana ko wàcc euh, xëy na bu fekkee lu mel ne absence la lay sangoo souvent sotti ndox ci gi dana yomb su loolu itam nu mën def rek ba ñu sotti ko ndox ci wet googu même bu fekkee jaar na sax bu raxas yaram wi li mën a raxas lépp ba mu des foofa foofu nga xam ne xëy na loxo mun fa àgg ndax loxo bu tële mu muur awraam nag wool ko ko ko sottil ku ci so ko ci sottil su booba tey loolu dina baax loolu maa ngi koy wax bu fekkente ne borom ko nekku fa léeg-léeg waaye bu borom ko moom mën na ko sang farate loolu moom dara néew ci wallahu taala alam ñaareelu laaj bi te Pape Alassane ko ba léegi li muy laaj mooy at tet publicité ki nga xam ne dafa dafay liggéey ci média am ku ñëw ne ko am naa nangam ngir bëgg mu publicité ko moom mu koy publicité te xamul ba xam loolu du wér la am muy laaj ba xam ndax loolu dagan na waaw loolu moom dagan na nit ki nga xam ne eh, magum jëmm la ñëw ci yow di la publicité ne la waxal ma ne am naa nangam ak nangam nga publicité ko muy am njaay loolu moom daggan na bu fekkente ne nag moom may yoro njaay ma la mu wax amut su boobaa moom ci bàkkaar bi te moom la yem waaye mi nga xam ne wax rek moom fay la ngay liggéey loolu moom doo ci am benn bàkkaar ndax nit itam la mu wax rek lañ mën a jàpp ba kay ñu gis du ko dindi wallahu aalam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy dafa amoon soxna jëndaloon ko ay bagage ci biir néegam lu mel ne lal ak armoire la xeet yooyu ginnaaw ba mu tàqale koog soxna sax bi mu amee beneen soxna nag daal koy dëkkal ci néeg boobu nga xamante ne soxnaam su njëkk si dëkkoon soxna su bees ki ne ko nag eh, bagage yi nga xam ne moom sa njëkk saako moom du ma ko jëfandikoo lal bi ci tëdd armoire bi ma ko jëfandikoo muy laaj ba loolu la ci lislaam wax waaw loolu de li ci lislaam wax wax mooy soxna si moom moo juum rek ndax loolu muy gànte la ka bañ moom tegu ko ci diine eh, tegu ko ci diine te itam Eh, toggoo ay coono la yoo xam ne lislaam tegu la ko eh, bagage yooyu wanaa borom kër bee ko jëndoon moom yëfama eh, kon bi nga xamee ne joxaat na la ko la nga war def rek mooy jëfandikoo ko kon gàntal gi moom daanaka tegu ci diine xëy na ci ak ñàkk xam mbaa ci aada ak yooyu dong la tegu loolu dong lañ koy toon su ko defee borom kër bi nag moom mooy am fullaam Eh, xam ne loolu ko soxna si sant nag nekkut xaq jox na ko amee soxna si eh, nekkut xàq jox na ko amee soxna si nekkut ne ku am soxna faaw war da ko wut war a wutal bagage yu bees mbaa ku am soxna taqalikoo ak moom rek bagage yëpp da nga ko war a génnee foofu andi yeneen yu ko bi rek bu ko defee moom mooy am fullaam xam ne soxna si ne ko bagage yooyu moom ay bagage sama te itam eh, moom soxna si da ko war a jëfandikoo gannaaw borom ko bi moo ko ko jox gàntal gi nag teguwul fenn moom lu ci aada rek xëy na wala ak ñàkk xam wallahu aalam ñaareelu laaj mbokk mi li muy laaj mooy ndax lislaam dafa digle ku am la ëpp benn soxna maanaam seen néeg yi eh, ku nekk am sa sa néeg war féete tontu li mooy déedéet loolu moom du lislaam waaye aada rek eh, loolu moom aada rek la eh, dañoo am aada ñaaree ñaare su njëkk si moom la néegam di féete penku soxna sa ci topp topp ci sa ci topp topp ca kon ñu xam ne loolu aada la waaye du diine bu fekkee nit def na safaan ba tam nag du ci am benn bàkkaar wallahu a'lam laaj bi ci topp te soxna si laaj ko li muy laaj mooy ndax lépp xaalis ca banque ba di ci liggéey dagan na wala déet yokk na ci laaj bi ne daa dégg ñu ne xaalisu banque dafa barkeelut waaw xaalisu banque moom moo xaalis yëpp a yam rek xam naa dafa barkeelut li tax ñu koy wax lañ ci jublu moom mooy ndax li ëpp ci banque yi ne ci suñu réew mi day faral di jëfandikoo riba xëy na loolu moo tax ñuy wax ala kulli xaal lépp xaalis ca banque ba ak lépp ko feneen euh, daanaka ñoo yam sart ca lislaam teg boo koy leb ci banque bi moom lay ci teg boo koy leb keneen te mooy leb ga bu ci ëppalante am bu ci itam intérêt am kon bu fekkee banque la boo xam ne bu la lebalee xaalis soo koy fay da nga teg dara loolu moom dafa xaraam ko ci banque bi ak nga lebi ko keneen ku mën a doon ñooyam képp koo xam ne boo ko lebee xaalis rek boo koy fay teg ca dara loolu dafa lislaam kon leb bu fekkente ne da nga ciy teg loolu moom dafa xaraam lislaam da ko araamal su fekkente ne nag banque bi da lay lebal rek euh, xaalis boo koy fay fay ko lu toll ne la mu la lebaloon donc doo ci teg dara loola moom dara néew ci suba loolu dagan na waaye nag loolu moom banque yu baree bari duñ koy def banque yu baree bari ci suñu réew mi moom ni ñuy jëflantee mooy bu ñu lablee faaw dañ koy teg dara waaye ñu xam ne loolu moom moo xam banque la moo xam ak nit la ko mën a doon wala ab société bu mën a doon eh, dafa xaraam li nga xam ne moom moo dagan mooy banque bi am matériel bu muy jaay daal la koy lebal su boobaa nag sañ na koo lebal lu ko neex lu mel ne ki nga bëgg ak kër banque bi jënd kër ba am ko nga ñëw mu ne la kër gi kat dam la koy lebal kër ga mën naa am sax soo ko doon jënd teew mu teew 10 millions lay jar waaye nag banque bi dala koy lebale moom 12 millions wala lu ko ëpp mbaa lu ko yées itam mm, kem la ngeen dëppoo rek subaa moom lool dagan na mbaa lu mel ne oto mbaa leneen waaye li fekk ñaari yi ngay li maanaam ngay fay ak li ngay eh, li ngay leb ak li ngay maanaam muy xaalis ak xaalis subaa moom du nangu ëppalante lool moom banque ku dul banque ñoo ci kon loolu mooy takk-takk bi rek wallahu taala alam laaj bi ci topp te si laaj ko xam naa laajam bi euh, dese naa leer dëgg-dëgg waaye liñ koy tontu daal ci gàttal moom mooy jullit bépp jullit ak bu mu mën a doon ak fu mu mën a bokk euh, ngir mu mën a bokk ak tarixa mu mën a bokk la ko war ci lislaam rek moom mooy mu défendre diineem défendre diineem moom mooy lépp luy gàkkal diineem mu dindi ko ak loxoom su ko mënee su ko mënul mu wax ko ak làmmiñam su ko mënul mu metti du ko ci xolam loolu moom leen te soxna wax man ko mun raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ba xadis ba jeex kon loolu moom mooy li war jullit bu nekk koo xam ne nag dafay sobental diine ba noppi di défendre leneen xëy na ngir ay intérêt wala ngir yaama neex wala ngir fii laa bokk kooku na xam ne mi ngay def lu jaaduwut ma ngay def loo xam ne bokkut ak li ko diineem digal te itam li yonte sama wax ne ku gis lu lu lu baaxut na ko dindi ak loxoom su ko mu dindi ko ak làmmiñam lépp lu mu ca mën defe ko bu ëllëgee dana ko layoo ak boroomam kon loolu rek moom mooy tontu bi wallahu taala laaj bi ci topp mbokk mi ñaari laaj la laaj li muy laaj mooy atte pirik mu ne waxoon nañ ci jotaay bi weesu ne moom la gën a wér ci waxe ba xam-xam moom mooy daggan li muy laaj nag mooy jigéen bu jàppee ba noppi ndax ñaay këppaat pirik bi ci boppam jullee ko ak pirik boobu ndax dina ko doy walif muy muuru waaw bu jàppee ba noppi këppaat pirik bi ci boppam jullee ko loolu moom dara néew ci li fekk pirik baa ngay laab rek loolu moom dara néew ca Euh, amaa nag ndax pirig bi dana ko doy walif muy muur tontu li moom mooy déedéet euh, pirig bi du ko doy walif muy muur daa war a muur boppam daa war a muur même bu fekkee pirig la te ci kawam itam da ko wara a ndax muuraay gi tekku ne bopp bi dong nga war a muur waaye da ngaa war a muur bopp bi muuraale say lex eh, sa kanam dong dong moo war a feeñ muuraale sa baat itam kon euh, pirig bi mënut a doy walif maanaam mënut a doy rek ba du muuru wallaahu a'lam laaj bi topp te suñ moo taala fa laaj ko li muy laaj mooy jigéen ji woor euh, di togg di ñam li muy togg ci làmmiñam ndax saf na xorom baa saf na suukar euh, mu laaj ba xam ndax loolu dagg na ci lislaam wala déet xam naa loolu jigéen ñi sant faal ñoo koy def wala ñu sant ñang ak yooyu euh, waaye loolu dañ ko sip loolu dañ koo sip daa bokk ci yiñ sip incha allah bu ñëwee ba àgg ci waxtaani koor yi am na audio yuñ ci defoon yoo xam ne acte yooyu yëpp wax nañ ko ca dana ci gën a leer waaye loolu daa bokk ci yiñ sip ci koor loolu nag mooy bu fekkente ne kii ñam moom li muy ñam jàllut ci biiram maanaam jàllut da koo teg ci wala ma ñam noonu rek ngir xam ba am suukar saf na wala xorom saf na waaye nag bu fekkee daa jàlle moom loolu day dog koor wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy doon tukki mm, doon wàññi ay julleem bu fekkee am na julli yu ko faat ca tukki ba bu dellusee ba koy fay ndax da koy wàññi wala da koy matal waaw da koy wàññi julli moom nu mu la faate rek noonu nga koy fayee bu fekk da nga ne cib tukki am julli la a wàññi boo ñibbisee ba koy fay itam da ngay eh, da ngay ni nga xamee ne bi nga nekkee fi nga dëkk am julli la faat nga xam ne boob da ngaa waroon a matal am julli la faat ba julli woo ko boo demee ba ci tukki ba itam di wàññi ay julli itam bëgg fay julli koy matal su boobaa kon ko lebee rek noonu nga koy fayee laaj bi nga xam ne suñ moo taala fa laaj na ko te mooy góor gi nga xam ne dafa amoon soxna mu faatu mu dogal ci ne du amati beneen soxna fekk nag amoon na doom ji jigéen mu dem a dem nag ba feebar docteur yi xool ko xamal ko ne ko li tax mu feebar mooy ñàkk sëy eh, mu ne nag eh, góor gi ak ni mu mel noonu ak feebar ni mu sonne daal eh, jenn jigéen nanguwut góor gi takk ko mu laaj nag ba xam ndax doom ji jigéen jooju sañ naa nangoo sëyeeg woy juróom woowu ndax mu mën a wér ci feebar bi tontu li moom mooy déedéet daganut ci woy jur woowu muy sëyeeg doom ji jigéen jooju ngir wér Eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa benn xadis boo xam ne Abu Dawud na ko ne yàlla wàccewul benn feebar ci yéen ne wàccee na eh, garab ko koy faj daan kon na ngeen wut garab tey faju waaye nag bu leen fajoo lu xaraam loolu moo tax boroom xam-xam ne sàngara sax dëgg na nit ki di ko fajoo sàngara sax même ki ñàkk pexe ba nga xam ne sàngara donc mën a faj sax kooko du dagan ci moom mu koy fajoo ndax yonent bi sallallahu bi nga xamee laaj nañ ko ko ne ko ndax sàngara mas na ko fajoo dana moom jàngoro la waaye du du saafara moom jàngoro la kon ki koy fajoo sax euh, da ko yokk jàngoro kon lu xaraam moom kenn du ko fajoo kooku euh, dëgënu ci moom mukk xelam di xalaat loolu na jéem a xool yeneen moyen yu mën jëfandikoo ba wér waaw wut soxna yaakaar naa ne euh, bañ am soxna moom maanaam bañ bañ a am soxna gi jëloon ab dogal ci ne du ko am loolu njuumte la waaye itam kom mm, àgg na foofu nag kom àgg na foofu Euh, mën naa fexe ba am soxna ala kulli xaal daal mën naa xool yeneen mooy yu mu jëfandikoo waaye ba mu des di njaaloo moo xam doomam lay njaaloo wala keneen ku mën a doon lool moom du daganti moom kenn du ko wax ne ko loolu dagan na ngir mu wér déedéet wallahu aalam beneen laaj bi ci topp euh, soxna si laaj li koy tontu moom mooy euh, lislaam mboolem kuy ab jullit la digal muy woor di julli di def jaamu yàlla yi nga xam ne moom mooy ponk lislaam yi jaamu yàlla yooyu ñi nga xam ne ñoo am ay ngànt rek ñoom la ko lislaam teggil bu fekkente ne julli la ki ko lislaam teggil mooy ki tàqale ko xelam wala jigéen ji gis mbaax mbaa mu gis regal waaye julli bi nga xam daa feebar sax lislaam du ko teggil julli gi julli bi nekk ca biir ab xare sax di xare ci yoonu yàlla nga xam ne moom yëkkati kàddu yàlla moo ko tax a jóg kooku sax lislaam teggilu ko julli ka su boobaa danañ digal ñu def liñ tuddee salatul xawf te muy julli ragal mooy dafa am na ñu jullee alquran ñëw leeral ko bu dee koor gi itam ñu ko lislaam teggin mooy ku màggat ba mënatuta woor wala mu feebar ba munta woor mbaa muy jigéen ju ëmb mbaa muy nàmpal mbaa kuy tukki ñooñu lislaam teggil mm, maanaam koor te ñooñu itam am na ci ñoo xam ne bu ñu ko lislaam teggil itam dañ koy fay bu ngànt la dañee kon ñooñu mooy ñi lislaam teggil koor keneen ku du kooku nag dangaa war a woor ak lu mën a xew ak foo mën a bokk dangaa war a julli itam ak lu mën a xew wallahu laaj bi ci topp te Sëriñ Saliou laaj ko li muy laaj mooy Eh, réew yi nga xam duñ àtte woo àtteb lislaam bu ñaar amee jafe-jafe ba ñu yóbbu leen ci yoon eh, am ci koo xam ne moom moo tooñ ba noppi ñu jox ko dëgg ndax bu yomal xiyaamee des na ko àttewaat wala déet tontu li waaw des na ko àttewaat eh, képp koo xam ne rek dem nga ci yoon te fekk yaa tooñ ñu àtteer jox li dëgg gi bu yomal xiyaamee ka nga tooñoon dana jël ci yow xàqam loolu moom la yenn doon junj ba muy wax naan. Eh, xam leen na man nit laa rek nit laa comme yéen eh, léeg-léeg ñaar am ay jafe-jafe ba ñëw ci man kenn ki neexu làmmiñ ba ma jox ko dëgg gi waaye képp ku ma jox ak dëgg ci yéen te fekk eh, amul dëgg fekk moom moo tooñ na xam ne safara laa dagg jox ko kon képp koo xam ne dem nga ci yoon te fekk yaa ñu jox la dëgg ga itam xamal ne bu yomal xiyaamee ka nga tooñoon dana jël ci yow xàqam yàlla dina la xisaab jël ci say jëf yu baax jox ko ko mbaa mu jël ay bàkkaaram moom ma nga tooñoon sëf la ko yow wallahu a'lam ñaareelu laaj bi nga xam ne suñu sari laaj na ko li muy laaj mooy jigéen ñi nga xam ne dañ ko opéré eh, fekk da doon am doom ñu opéré ko eh, nga xam ne doom ji jaarut fa war a jaar ndax kooka eh, dana am daleti wasin wala boog ndax dana continuer daal di mën a julli ci saasi ak di woor wala déet waaw bu fekkente ne dara génnut kay ci awram su moom du ko tee julli du ko tee woor waaw ndax daleti wasin nit sax mën naa wasin deret ji jeex ci bis bi su jeexee ci bis rek day daal di sangu te tàmbali ay julleem bu dee jamonoy kool tam muy woor kon ki nga xam ne dañ ko opéré génn doom ji ci biir bi nga xam ne eh, dereti wasin génnut su boobaa moom kooka eh, loolu du ko julli du ko tee woor wallahu aalam laaj ji topp te soxna Asu Mbàkke laaj ko li muy laaj mooy jigéen bu fekkee setul mu am lu ñuy def jumaa ja lu mel ne xëy na woote fa am ndaje mbaa yu mel noonu wala ay jàng kaamil mbaa yu mel noonu daal ndax dina dagan ci jigéen ci nga xam ne dafa gis mbaax mu dem ca mbooloo ma bu demee yor kurusam di tudd yàlla wala déet waaw jigéen bu fekkee dafa gis mbaax moom yi ñu koy tere moom mooy julli ak woor ak sëy boroom këram ak dugg ci biir jàkka ak laal alquran euh, waaye yeneen jëfi aada yi nag lu mel ne dem ci nit ñi dem ci xew yi togg ak yàkk ak fóot xeet yooyu yëpp moom dagan na ci moom mu def ko bu fekkee jumaa Euh, bu demee ca mbooloo moom dañ koy tere mu dugg ci jumaa ci wax naa ko sànq euh, jumaa wala jàkka lu ñu ci mën doon koy aaye mu dugg ci euh, kon bu fekkee day dem ca mbooloo ma rek toog ca la wala jumaa ci xëy na yor kursam ci tudd yàlla loolu moom dagan na ndax jigéen bu gisee mbaax itam dagan na ci moom muy tudd yàlla ak di jéggul ak di jël ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon jàng alxuraan ak laal kaamil yooyu lañ koy tere kon mbooloo muy dem day xool ba xam rek ndax ca biir jumaa ja lañ nekk wala bu nekk moom du sañ dugg ca biir ndax ngànt lee tax waaye bu fekkente ne day nekk ci réewal jumaa ji moom loolu dagan na ngàbb kulusam di tudd yàlla itam ba tey loolu dagan na dem ci weneen xew wu mën a doon itam ba tey loolu dagan na wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy lan mooy àttab soxna yi nga xam ne dañuy bokk ci concours miss yi maanaam mi tànn jigéen ñu gën a rafet mu sol lu raflewu di ci jël ay ngañaay xaalis boobu ndax dagana wala deet Eh, bu fekkente ne eh, bokk ci concours boobu faaw day def loo xam lisaan da koo tere lu mel ne sollu gàtt wane aw yaramam dox ci biir ay góor bu fekkente ne ti noonu la amee moom loolu lu xaraam la eh, alal jëm ci amee tam kon suba alal ji day ci moom naka noonu tam li mu wax jigéen ji joué théâtre itam am ci góor goo xam ne dañ ko wax nag ci théâtre moom mooy borom këram ñoom ñaar ñuy wéet ak di laalante di def laal yoo xam ne xëy na moo li soxna ak këram di def ñooy bokk wala dañuy nuroo loolu itam lu xaraam la ba tey loolu itam lu xaraam xaraam la théâtre moom wurtu tax jigéen di wéet ak góor mbaa muy laalanteeg moom rawatina nag di àgg eh, fenn fi kon yooyu yëpp ay mbir la yu xaraam yoo xam ne ku def danga ciy am bàkkaar moo xam góor la moo xam jigéen bu fekkee da koy def ci wuti alal itam na xam na alal jooju moom alal ju xaraam la eh, lépp loo xam ne lu xaraam la rek eh, daganut ci nit ki mu koy liggéey da ca am alal ndax bu ci amee alal alal ji itam day xaraam wallahu aalam laajam bi ci topp laaj mooy waajur wi nga xam ne dafa am ay doom te yemalewu leen lan la ko lislaam wax waa kooku day lislaam da koy wax ne ko mu yemale ay doomam loolu moom lay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digle eh, te itam loolu la yàlla digle waajur woo ci xam ne nag am ngay doom yemale woo leen bu yomal xiyaamee di nga ko layoog say doom sa doom ji nga xam ne moom yemale woo ko ki eh, mbokkam dan ko ko layoog moom te dina jël xam ci yow itam te itam ku koy def na xam ne yaa ngi def bàkkaar ndax lislaam loolu la digal lislaam mayut benn waajur muy defal benn doomam lii te deflu ko ña ca des Euh, am na ci saxaaba yi koo xam ne mas naa euh, wax yonante bi lu baax lu muy defal jenn doomam yonante bi ne ko ndax yaa ngi koy defal ña ca des mu ne ko déedéet mu ne ko boog booleel ñëpp di leen ko defal wala boog nga boole bàyyi ñëpp kon loolu moom mooy àtte bi ku deful loolu nag nga xam ne mi ngi gàddu xaqi jàmbur topp yawmal qiyaama dina ko fay te itam mi ngi mooy ndigalul borom bi di mooy ndigalul yonante bi sallallahu laaj bi topp mbokk mi koy laaj li laaj mooy koo xam ne daa feebar di tuur ndox lu jege léeg-léeg sax mu ne ci biir julli bu amee ñaar rakka balaa am ñett loolu dikkal ko nan lay def waa kooku dañ koy mujj teggil coonab di jàpp saa yu loolu génnee wala boog di dindi sobe saa yu loolu génnee wala lañ koy digal mooy saa yu julli rek moom na jàpp ci saa si te dem julli ci bu loola génnee ci biir julli gi ne moom loolu dañ ko koy jéggal ndax euh, ngànt la loo xam ne moom munu koo daw comme jege na noonu ba nga xam ne moom saa yu julli ñaare ci biir julli si da koy ñëwal kooku moom loolu day mujj nekk ngànt ci moom des ko koy jéggal eh, mën na ko julliwaal te du yàq dara wallahu a'lam eh, ñaareelu laaj bi nga xam ne soxna Asu Mbàkke laaj na ko li muy laaj mooy nit koo xam ne dañ koo jëñ lum defut ba tëj ko ci kaso ginnaaw ba ñu def ay enquête ba gis nag lañ ko doon jiñ defu ko fekk nag moom eh, biñ ko jiñee tuumal yi am na ay fere yu bari yu mu def ci wàllu def ay test rek yooyu yëpp moom moo ko doon fay ngir feeñal dëgg gi bi dëgg gi feeñee nag ñu gis ne moom loolu defu ko muy laaj ba xam ndax moom dina dagan ci moom mu nangu ñu ko jiñoon lool ñu teg leen ay daan tëj leen nangami eh, ab diir wala boog eh, mu laaj fere yi mu defoon ñu fay ko waaw loolu koy am na ci droit yi nga xam ne da ko fere woon moom te ay tuuma rek waraloon ko te loolu amut am na droit ci ñu delloo ko ko eh, ba te itam bu fekkente ne mënta baale mënta baale am na xàq ci. ñu teg ay daan ñooñu nga xam ne ñoo ko teg loolu ndax loolu yoon moo koy àtte loolu moom yoon moo koy àtte yoon moom mooy wax ne ku tooñ nit def ko nangam nangam mooy te ba àtte te léeg mu wute eh, benn ñaar ba ñett bu ko defee su boobaa léeg yoon mooy tànn wala kiñ toon tànn waaye am na ci eh, xàq daal loolu lépp na dañ koo tooñ su mënee jégale nag moom moom mooy li gën wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy koo xam ne dafa julli moom donc ginnaaw bi mu gis meneen mbooloo muy wat julli gi mu julli won ba nopi ndax dina dagan ci mom mu and ak mbolo mu julli wala deer waaw lol da luñ sopp la dañu sopp ci jullit bu fekke dafa julli julli kenn gina mu gis mbolo muy julli waxtu mel ni mu julli won mu andat ak ñom ba mbo julli ka loolu nak luñ sopp la nekkul ne faaw da ko wara def su ko defee def na lu baax ndax day am ngëneel mbolo mi waaye su ko bàyyee tam nag eh, du ci am benn bàkkaar moom ndax julli na ba noppi wallahu a'lam laaj bi ci topp mbokk mi koy laaj li muy laaj mooy kii bay ab toolam ba mu ñor mu génnee asaka ci teg ko nele ber ko ginnaaw ba nag la des ca mbay ma lépp lakk muy laaj ba xam ndax su boobaa asaka jam génne woon moom ber ko te lakk dana ko jëfandikoo wala déet tontu li moom mooy ndax asaka ji àqi jàmbur la joxoon dafa am ñu ko moom na ko jàppee ne rek luñ ko dénkoon ndax asaka jooju bu bu lakkaale woon sax bu lakkaale woon ginnaaw ba génnee ba noppi mu lakk sax da koy fay ndax bor la yëfi jàmbur la kon loolu moom mooy tontu bi wallahu a'lam ñaareelu laaj mbokk mi mooy kuy jaay ay ginaar yor pulaaya ndax ginaar yi da cee génne asaka wala deet waaw du génne asaka ci jëmbi ginaar yi waaye alal ji ci boppam alal ji nga xam ne moom mooy capital bi muy liggéey ci lay génne asaka bu fekkee lam yor ci capital mat na nisaab te suñ ko wax ci jotaay bi yaakaar naa nisaab ji du sori trois cent soixante et un mille deux cent euh, wala huit cent euh, bu fekkente ne lim yor ci alal mat na loolu rek yor yor ko ren ba déwén ci alal jooju lay génne asaka waaye bu dee jur yi moom yi génn asaka mooy xar ak bëy ak nag ak gileem su dul loolu nag yeneen yi muy jaay capital ba mu yore moom lay génn asaka mooy alal ja waaw wallahu taala aham kon lii moo fi ñëwoon ci ay laaj tey eh, mbokk yi nga xam ne yónnee nañ ëpp ñaari laaj te tontuwuñ ko ñu xam ne jataay moo tëddee noonu ndax eh, kenn ku nekk ñaari laaj rek la sañee dugal kon yeneen laaj yi xam naa ñu bàyyi ba beneen dimanche insha allahu ñu dugalaat ko ñu ngi ñaan yàlla mu ma ñu dégg ak topp te nangul ñu mbooleem suñu ay jëf yépp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa